bu dee dund dama yit kooku ne ko maa ko jëloon jéggulu ko bu faatoo jox ko ay ndonoon wax ñoo ko moom boo gisul kennam saraxeel ko bu dee da nga doon yàq ab daram nag di wax ci moom wax ju ñaaw daan ko jëw daan ko wax lu bon yàlla xiir la ci tuub demal ba ci moom nga jéggulu ko bu fa nekkee bu fa nekkul nag loolu du àq ju ñu doon bu fa nekkul moom faatu na yóbbaale sa àq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 ñu ne gaa yi mu tooñoon kii gën amut lu mu leen fayee li fi des mooy kaay leen wàññi seen i ñaawteef jël wàññi seeni i bàkkaar yéen ñu wàññi seen i bàkkaar ñoom sëf nga xam dafa dem yóbbaale yiw bu bari waaye fa mu mujj mooy fees dal ak bàkkaar yóbbu ko sawara wala yasubillah loolu li koy waral mooy tooñ sa morom jàmm fi ci àdduna moo tax noonu nag ku ci ameel sa morom jàmm ak tooñ na nga ko lijjanti balaa faat kon tooñante moom lu mat a moytu la moom la sëñ bi jàngale ca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 ndax yonent bi nee na ki araamal naan gi moo araamal njëg gi li ci des it ñu bàyyi xel ne fukki nit mbaa lu ko yàlla rëbb na leen ci sàngara yonent ay salaam moo wax ne yàlla rëbb na sàngara ci boppam rëbb na ki képp ku koy naan rëbb na képp ku koy jox nit mu di ko naan di ko màndal nit yow mën naa naanoo ko waaye yaa koy servi da ne ci fu ñuy jaay yooyu sa liggéey mooy ku bëgg a naan yaay dem indil ko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 waaye daal juróom-ñett fukk garaam ak juróom mooy nisaab sëñ Cheikh euh, kii day laaj mu ne laaye ji suñu boroom di wax la bëgg ñu leeral ko ko mu ne yàlla dafa wax ne wallaati taxaafuuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaja waaw aaya jooju de borom bi wax subhanahu wa taala mi ngi jëm ci mbir yi boroom kër yi ànd ak seeni soxna léeg-léeg ñu ne ci kër bi ak ñu jekki-jekki tàmbali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 wan ko ak ñagas te topp ca loolu it jàpp naa mën na bàyyi xel fii nag ñépp ci moom biñ mujjee ñaari moom lay njëkki buñ meree moom biñ biñ war a mujjee moom lay njëkki loolu nag du saafara lu bari waaw kay euh, kii day laaj mu ne koo xam ne dañ ko wuutal ci julli imaam bi dafa am ngant wuutal ko ndax moom day sujjóot sujjóotu juum bu fekkee ne imaam bi moo defoon lu war sujjóotu juum waaw xam nga ku ñu wuutal mooy nit ko wax ilimaan di jiite ba mu yàgg mu am ngànt maanaam ngàntul jiite wala am ngàntul julli gi ngàntul jiite mooy mën naa julli bu yàgg am jàppam toj mu génn dem xëcc kenn kooku àggale julli gi wala mu julli ba mu yàgg mu sëgg mënatu siggi day dellu ginnaaw bokk ci sàppe yi puus kenn koo ko dem ci kanam kon yépp mën naa nekk wuutal kooku ñu wuutal nag day àggale julli ilimaanam lépp lu ilimaanam waroon def da koy def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 loolu kenn waru caa boppam ku fa yóbbu nit it yaa gàddu bi bu ko fa ndax dañ lay atte ci lu safaan ak yàlla santaane te borom bi noonu na wa man lam yaxkum ma anzalallaahu fa ulaaika humul kaafiruun fa ulaaika humuz zaalimuun fa ulaaika humul melokaani ñii atte woo atte wuy safaanoo atte yàlla yi kon du ne saa buñ ñu ci tribunal boo xam ne du lislaam rek atte bu bon la saa buñ ñu fa attee atte bu safaanoo bu lislaam Euh, kii day laaj mu ne koo xam ne dafa sëngiwu ba noppi njaalo waaye jotuñ ko atteb atteb charia mu ne ndax kon su baayam faatoo moom day doon baayam wala waru ko doon ndax day mel dafa jàpp ni kon waroon nañu koo rey daal moo waroon njëkk faatu baayam waaye yàlla dogal na njëkkatu faatu baayam <laughs> maanaa ku sëngewu mooy njaaloo dañ ko war rey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 kii moom day laaj mu ne bu fekkee ne jigéen dafa joteeg boroom këram dem seen kër lànk ne du dellusiwaat ndax am na ab diir boo xam dañ naan diir bi bu ko toogee te ñëwut dañ koy jàpp dañ koo fase lu mu fa yàgg-yàgg te boroom këram néew ko fase naa la demul tribunal ba tribunal woo boroom kër ba atte ne fase na ko ci buum la nekk maanaam pay mu yàgg du soppale ku nekk am passé la ba ko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 bu buñ ko xasee tere nag du daganati kenn di ko jëfandikoo ndax dañuy sàmm maslahatul amma njariñul mbooloo mi daa bokk li war a sàmm kenn nit du jariñ boppam ci waxtu woo xam ne ma ngay lor mbooloo boo tax yu mel noonu bu fekkoon nag day loo xam ne dañoo bëgg a noggatu ñenn rek am ñu bëgg a favoriser ne leen yéen dee jaay ñi ci des ñu xañ leen ko suba ku fexe ba ba génn ca du wàññi dara ndax ak tooñ la nga fexe ba mucc waaye bu leeree ne lii nii baaxut ci ñëpp dañ ko war kon ku ko def def nga bàkkaar ndax def nga lu ñuy tere ndax da lor sa mbokk yi sa mbokk yi nga dëkk sa mbokk sa mbokki nit moo tax yooyu ñu mën ko bàyyi xel baax a baax mu tam faaw ñu xajale li ñuy tare mu dugg fi ngir maslaxatu nit ñi ak li ñuy tere ngir dugg fi ngir dimbale ñan ñaar yooyu dañ koy xam ne euh, kii moom day laaj nee na lu bari ci jigéen ñi nga xam ne dañ di fase dañuy yóbbaale bagage kër gi duñ bàyyil sax seen borom kër dara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 dalaa war a wax ñaata lay fay maanaam fii bokk na ci aada yi nit ñi def kaay liggéey bu kiyee rek moom mosal dara lislaam day tere lool ajir daa bokk ci ay chartam ñu xam ñaata lañ koy fay ak kañ lañ koy fay loolu mënta ñàkk ngir mu wér kon kuy liggéeyloo nit na koo ko wax ko dama lay fay weer nangam wala fukki fan jone nangam wala bis bu ne nangam bu ko jaralee ñu tàmm liggéey wala nga ñëw ne ko ah, lii kat dama am waxtu yoo xam ne moom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 kon bépp tukki bu sori boo xam ne day tax mu fanaan la du ko sañati jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax dagat na ci jullit bu góor muy takk montre boo xam ne nii dañ koo defaree or wala xaalis wala jamaa wala yu mel noonu waaw lu mel ne or de moom li ci lislaam santaane woon moom yëpp islaam daa waxoon ne da koo araamal ci góoru xeet wi jigéen ñi sañ nañ koo jëfandikoo ci ay takkaay waaye dafa araam ci góor ñi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 reyin wu wuuteeg sharia mën nañoo jàpp ne lañ ñuy indil baax ndax wa taamu alladina utul kitaaba xillu la ko waaye saa boo xamee nag ni ñuy rendee baaxut moom sañu doo ko lekk ndax loolu ab jullit sax bu rendee rendi gu dëpp wuuteeg sharia bu na pémètre kon wépp yàpp bu ñu jëlee ci bitim réew bu dee réewum majuus wala réewum ay mulxidoon ñu wedd yàlla kooku lekk ko dëgëru ndax ñooñu seen rendi baaxut waaye bu dee réew moo xam ne ahlu kitaab lañ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 mën naa nekk xarib waaye tubaab yi nga xam dañ daan jàng diine jàng alxuraan ko mokkal mën nañu dañ ci barab jàng nañ fekk jàng lépp waaye yéefar lañ dañoo sàggat rek mën nañu ñëw ci barab di làqutu jiite la julli dafa la julli def lépp saa boo yëgee ne ke la jiite woon bi sàngam yéefar la woon julli googu baa ma ko war na ñaareel ba na doon góor na doon góor gu ñu xam jigéen du jiite ci masa bu Malik du jiite góor du jiitew jigéen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 danañ ko dañ koy sartu ci ilimaani ratib kuy sax ku jiite nit ñi waaye bu fekkoon ne nag da ngeen a daje woon nii rek ci benn jot ay julli jot moom bari na ci yoo xam ne mën nañ ko ñu moom ku man ponk yi rek bu la jiitee ba xam hmm. kii day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa taxawal jullik suba mu fàttaliku ne moom julliwul ñaar rakk ay fajar waaw bu fekkee daa ne ci jàkka ji de ñu xas taxawal jullik suba te julliwul fajar da koy bàyyi ànd ak ilimaan julli ñaar rakka suba bàyyi ba mu naaj bu jant fenkee ba mat fanweeri minute wala lu ko jege mu fay ñaar rakkay fajar bu fekkoon nag daa ne ci jàkka ji bitti jàkka ji di ñëw dégg ñuy taxawal julli te xam na ni ilimaan ji day jàng saar yu guddi mën naa taxaw ci bitti biti la ñaar rakkay fajar ñëw ci jàkka ji te rakka bu njëkk du ko raw kon sañ naa taxaw ci bitti julli ñaar rakkay fajar doo dugg ci jàkka ji waaye bu ko bala koo daf ilimaan raw ko raka bu njëkk nag sañatu ko day ñëw dugg ci julli gi bu naajee mu fay loolu lañ ko sant kii moom day laaj mu ne koo xam ne day jàng ndax bu jàngee ba weer wi dee wala boog weer woo xam ne daal jàngu ko ndax ki koy jàngale am na sañ-sañu laaj ko ne ko da ko war a fay faaw ñu xam li tax jàngu ko bu fekkee moom moo tax moo daf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 kii day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa julli ci barab bu am sobe te xamu ko lu may ginnaaw bu mu jullee ba noppi waaw li ñuy wax tahaaratul xabas mooy sa yére ak sa yaram ak barab bi nga jullee taq sobe charte la ci wéru julli waaye maa zikri wal qudrati bu fekkee ne yow fàtte woo ko te mën nga koo dindi war na la nga dindi ko boo ko defu julli ga du baax waaye dafa mel ni moom da ko fàtte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 danga ko ko delloo yàlla boo ëllëgee te moom la ko jox lu set wi ci la woon fitra fitratallahi la ñëwale woon kon fexeel ba yow fitra boobee nga suuxat ko ba mu màgg ba buy delloo ci boromam doon ko jat nga am ndam am tuyaaba moom it mu ndam am tuyaaba bu dul loolu lu sikk ci moom te fekk yaa ko waroon taxaw taxawoo ko boo ëllëgee sa borom dan la ko laaj euh, kii day laaj mu ne yenn doom yi dañuy ñëw seen kër jur tabax wa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 am mbalit la booy seet loolu ñaar yi mat naa xàmmee desu mag dañ koy bala nga koo jariñoo laaj ñaan ko borom bu dee yi nga xam ne kiiwut nag sañ na ca dajale yu bari defar ci mbubb suba moo ko moom euh, mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne nii weeru koor dafa teru nee na ñett fan yu njëkk yi wóoru ko te nag amul benn ngànt moom dafa wóoru rek mu ne ndax kooku kafaara war na ko wala déet waaw xam nga ramadan moom bu dikkee képp koo xam ne woor war na la te amoo benn ngànt amoo benn lay bu dëgërit amoo benn lay bu dëgërit soo wóorut bis booba am nga bàkkaar bu rëy fay bis ba war na la ba noppi nga kafaara boole ji da fay bis bi ba noppi kafaara bis bi ngay fay mooy bis bu fekkee ñetti fan la kon dana fay ñetti fan bis bu ci nekk dana ko kafaaraal ñetti kafaara ñetti xeet la juróom benn fukki miskiin ku ne mu jox la mudd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 ci leeral yu am solo yi mu indi ci laaj yi nga xam ne ñëw na fi kon bala ñu yëkkati jataay bi daayira muqaddamatul xidma mi ngi yëgal mbooleem imaam yi nekk ci Touba ak lu ko wër ak ñi nga xam sax dañuy def ay bayaan ci jumaa yi ne suba ak noddukat yi ne suba incha allah bu ñu julli tisbaar ba noppi fii ci jumaa ji dina am ak tàggat gu ñuy defal imaam yooyu ak noddukat yi ak ñiy waxtaan ci jumaa yi laata ñu julli ajuma kon suba buñ julee tisbaar ba noppi lañ ko def fii jumaa ji daayira bi di sàkku ci mbooleem ñi loolu yitteel lépp ñu teew ndax njariñul kese la niki noonu ba tey it képp koo xam ne am na laaj bu mu bëgg a jàllale bu jëm ci fatawaay yi mën na mën na ko yónnee ci numéro yi 77 703 63 54 wala 77 072 94 76 wala 77 765 58 73 yooyu ku ci yónni say laaj dina agsi jataay bi bu ko defee borom xam-xam bi ñu fi dalal danañ ko mën a tontu kon ñi ngi santaan ñëpp suba incha allahu kon ñu fàttali ne ñu ngi war a waxtaane carte mooy lan ak yan lor la am ak yenn ci xeet yi nga xam ne yu beesal ñu di ko def te mu dugg ci carte sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud moom moo koy def kon ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu teewoon ci jumaa ji ak ñi doon topp waxtaan wi ci bitti ci GMT bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko ak télé grand mosquée bu tubaab bi ci yeneen tele yi ak yeneen site yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ñëpp di sant euh, mboolem ñëpp daal bàyyiwuñ kenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.